am mbër bu loolu weesoo amna lo loo xam te ni mënoo cee ñàkk yiy parce que comme limay faral di wax ni kat bi danaan cioli cioli léegi mu leer mais digënté gi nga xam gu leer parce que kenn wul fi nga xamante ni surtout Cheikh ibn Ndumbaan bi jot na fa jaar ak wa géej ba yu mujj nga xam te jot na ko jongante anam bi mu ko bëré daal di jaaxal ñu bëri ñu bëri di xaar rawati na wa waaye way mi ak Boy Niang moo ne xar kanam wu yes nan nga gisé combat boobu combat boobu du mu sax sori loolu lay wax quoi xam nga nit bo faré fen doto doto doto si nek di euh du mu si nek tamit di décortiquer làmb ji comme amateur wala leneen man damaa far ba pare maa ngi ñaan yàlla yàlla may Lac de Guiers ndam yàlla may booy ñaa jàmm ak salaam Lac de am wér ba ñëw ba si biir làmb ja Lac de daan ko mais ay jaar na fii géejawaay jaar mbër jaar na ku nekk ak fu nekk loolu loolu day am quoi daan na biir géejawaay waa géejawaay daan nañ biir biir Pikine noonu noonu la demee quoi. mbeur deug mo la mais lolou taxul ñu déplacer wu ñew fi de yow ndanaanu lamb nga te beure nga ki nga xamantene moy boña xam la déggé deux aussi bu baax yow xam nga ko en âme et conscience tay fo nga wax ci combat bi nan nga gisé combat bi ak nan nga xamantene mom nga gis ni lak non la ko wara non deug <laughs> la man mbeur la deug la xam nga yalla may na ma tamit touti xam xam ci lamb du mëna xam na lepp ci lamb quoi mais wax ji lu mu wax sank rek dafa ëmb quoi xam nga ba far dootoo wax lu ki quoi mm, li gëm ak li bëgg rek loolu wax quoi moy yalla may Lac de Guiers 2 ndam Boy Niang mbeur la champion la bu confirmer mbeur mu meuna beurel la mbeur mu naqadee beurel la mais mo ngi beurel mbeur mu gëna a naqadee bëril si arène bi mbeur mi nga xamne amul benn défaite ci arène bi. su ma la déggee de mo gëna moo beurel Boy Niang. Ah, mais xoolal Lac de Guiers 2 yan mbeur ñoko daan kan moko daan hein dam fi ñëw pour lañ mbeur waaw lañ nga mo kay mais dama la delawat question bi rek dama la dama la ko delluwaat rek Lac de Guiers 2 kan moko daan par point nga koy daane wala leneen moko ko ëmm seen ba léegi mun nañu werante jëli bi am wala amul ndax kii dafa teg fes kii teg bopp te boobu lañ fi wax jëli bi nga xam ne jël la buñ ko jox nii à part des yëpp ku ko si daan point nga ko daanee boo ko mënul daan nit ngay def ak moom kon kooku ku ko mën ndax bëre ñett la ndam victoire ak ndam ak defet ak match nil mais mbeur mi nga xam mënoo ko daan yalla nako yalla yàlla defal jam rek may ko sagom ba bisu làmb ji may ko ci ndam loolu am na solo mais bu ñu xoolee ñoom ñaar anam bi ñuy bëree dañ nduroo anam bi ñuy bëree trop tey lan nga gis ni yow noonu la lag war a mën a bëree ba génn la mooy clé combat bi. <laughs> mais nit di dem guerre lii mooy clé combat loolu ñun ñaar bis bu ñu weetee bu fekkee am na confiance man bu ñëwee laaj ma ko mun ma wax ko ne ko bu dee sama xel doy na ko mais am na ay am am na ñu muy àndal ñun ñëpp yéene nañ ko ndam ñoo koy ñaanal yàlla may ko ndam xam nga la Sénégal ko soxla. piqué na ko soxla géejawaay ko soxla mu nekk war a nekk làmb ju neex ndax làmb dafa war a dundaat boo xoolee si kaw dafa rafle ay mbër mbëri ci kaw dafa rafle ay mbër làmb ji boo xoolee euh, dafa dafa manqué ay mbër daal te ñoom ñaar ñëpp fu ñu toll nii dañ toll si war a gën a demaat quoi la dëgër prouvé na Boy Niang prouvé na mais daal combat bu difficile la bu métti la képp ku taxaw naan kii moo mën a kii mënul. yaangi nax sa bop mën nga am nak yene wax ku mën wax wax wax wax ne ki la yene mu daan man loolu moma dal la guerre mom la yene mu am ndam non la demé ah, ñu dégg aussi récemment fan yi mujj biñu démé ci nga xamante moy Omar Sen junior mu daari wax ni bu école lin mor faram mu daari wax ni la de guerre bu bëggé am ndam ci combat warul jox boy cër bu mu ëpp gi nga xamantene moy boña Boy 2 yow est lo no gisé kàddu yoy wa Omar Sen junior champion la mom gis-gisam la wax mom gis-gisam la wax rek parce que kenn ku nekk moom lu lu bëre bu mu mën ak façon la dëgër bu mu mën peut être mun na am bokul ndax bëre mun nañ né ay page yu bare la kenn du mokkalandoo yëpp da ngay mokal yi rek ki mokal li ki mokal li mais amul benn mbër buy bëre lepp amul légui nak mom bu doon comme niveau am lay waxé ak jëmmam ak façon bari nam mais tamit adversaire lu mu wax tamit si benn côté deug l'adversaire hmm, dañ koy respecter de mom lu mu wax nonu adversaire dañ koy respecter parce que dem entraîner ji mu dem entraîner ji jox la avance jox ko avance mu dem préparé ji nga dem préparé ji non loolu moom mbër mi moo xam lu nekk si moom moom moo xam lu mu war a bëre si digg géew ba. waaw mais mbër nag ndaanaanu làmb nga xam nga leen ñoom ñaar bu baax no non déglu ma dañuy waxtaan xam nga leen ñoom ñaar bu baax ndaanaanu làmb nga xam seeni i qualité ñoom ñaar bu ñu bëree loo gis. non loolu déggoo lu ma la xam nga làmb bis bi ne mu juumloo nit bis bi ne mu juumloo ku nekk man daal yéene boobu laa am si si combat bi non <laughs> man mënu ma wax en tant que mbër. comme xam comprendre nga ndax buñ ne uudé ah, dëgguma la mais dégg nañ dégg nañ fi ku mel ku mel Sa Thiès mi ni ñoom ñaar bu ñu xeexee Lac de Guiers favori ku ci mel ni Abdou Diouf tamit ni Lac bu ñu xeexee Lac de Guiers 2 war na Mem mën a wàcc yow lan nga gis tamit sa xalaat bu ñu xeexee mais yow bëre nga may laaj ak même même yooyu yëpp dafa am lu ëmb tey jii nii Abdou Diouf ndam la yéene Lac de Sa Thiès kenn waxatu ko bu mënoon remplacer ñëw fekk si biir Lac de Guiers muy bëre ji da koy dem ji man mi noonu keneen ak noonu xam nga mais uudé bu lu mu wax bëy bu ñu ne der baa tax waaw xam nga fu ñu toll nii <laughs> en tout cas combat bu neex comme ñoom ñaar ku si nekk fu di ba kii lu ma xamee la dëggee sax la euh, gën a ëppee xam nu ma xamee kay. non bu buñ dajee kay comme déggoolum la buñ dajee combat bu neex ngay am ñoom ñaar ñëpp ni bëre bu mosul woon gis si ñoom ñaar ñëpp si lay feeñee. man la la dëggeer laa yéen mu ëpp sens. la dëggeer non buñ xeexee. na bu bu mu xeex ak Lac de Guiers. ay mbokam digaloo ay mbokam comme xam mom suñu geewal la <laughs> té suñu rak la tamit moy loolu amna placer lamb ju quoi dinañ ko daan nank rek bañ ko gaaj non ñaar yeb ben baaxu si mom sax ñaar yeb ben baaxu si mom quoi yalla nako yalla may jàmm ak salam dal non yalla nako yalla may jàmm ak salam may ko la de guerre ñu ñëw bisu làmb ja yàlla may ndam Lac de si kaw Boy Niang jël bu set wicc. waa mais bu ñu déggee ku ci mel ni waa Pikine ay ñoom Ndoye bu Boy Niang ay grand Pape Sarr ñoom làmb ji mën nañ daal dañoo am benn excès de confiance dañ ko yombal de tour jàpp ñoom dañuy ñëw jaar ci nga xamante ne mooy Boy Niang dem ci ki nga xamante ne mooy Balla loolu la wax ni ñëpp xam nañ fi ñu teg seen bët. waaw mais am nañ si plein droit làmb moom noonu la rek kenn ku nekk borom bi ko du mbagg boo gis boo xoolee si euh, xool ba magasin nga siy fekk xam ñom sen sen bëgg-bëgg ak sen yaakar lañ wax man tamit sama bëgg-bëgg ak sama yaakar nyom wax xam nga ñom ay amateur lamb lañ ay supporter pikin lañ lool mom motax mo wax lu ma la wax sank man mi am man bër la nek doomu way la de guerre la yéen ndam mu nek sama xarit nek sama frère lool mom motax kenn ku nek ni nga ni nga santere ak ni nga gëmé rek non ngay waxé ñom am nañ ci plein droit am sen excès de confiance mais bu démé ba ci ba les du fa nek ci biir ndooy ak ñoom Pape Sarr ñoom ñëpp duñu nekk si biir Lac de Guiers ak Boy Niang ñoo fay nekk. mën nañu jàpp ni kàddu yooyu ay kàddu ku far la kàddu supporter la. non kàddu supporter rek lay doon man lu may wax nii tamit kàddu ku bëgg yéene Lac de Guiers rek lay doon waaw bu doon comme yeneen combat yi nga xam ne feneen la mun naa si joxe sama xalaat te mun na ñëw ba làmb ci mu bañ demee noonu ndax làmb dañ nañ ren làmb la kenn xamul fu muy demee fu ñu koy fogee toujours ak fu muy am nu muy amee du doon benn mukk non la demee quoi. kon daal les de jàpp ne lépp loo xamante ne war na mën a daan Boy ñaa mi ngi ci la de guerre 2. dëggalu ma la la de guerre 2 kan moo ko mën si làmb ji la de guerre 2 kenn mënu ko sa waay la de guerre 2 si galaa la génnee nekkoon nekkoon tokaaru poule bi génn fa jël première. Ah, doguma la kenn mënu ko mais ah, ah, sorteem mi mujj comme ni ma ko waxee ñu bëri dañ ne xàmmee duñ ko lan mooy problème. nit ñi dañ dañ xamul làmb rek ndax sorteem mi mujj kan ak kan la bëreel kan ak kan la bëreel ñu muy bëreel xam naa duñ ay mbër doguma la mais ay mbeur lañ mais sétane ni la digé de ci clash bi ko xam tane day daw xex ak yow piéger la daw jël la mais yoy yeb ñu ko ci mom xex bi loxom du juk sax <laughs> xam nga lamb bu ñëk ba boy boy gën di nekk mak da ngay dem di gëna bëre ak xel pa ngay bëre ak sa fugu la deuguer fofu la toll gis nga bu mu nekké toll fofu su non wané bopam wané na bopam mu gën nekk mak day ñew indi fulla ak fayda ak tactique fa la toll diko ko mais mbeuri muy bëre doon bëreel tamit ay champion lañ ay cousu mel na ëmma seen muy modlo ak kenen ak kenen day ñëw respecté combat am respecté lundi ba tamit moom day respecté lundi ndax moom entraîneur am loolu daan wax xalaatal altine ba muy père Aliou Seye loolu lañ daan wax moom la koy wax te moom xam naa loolu lay demee ba léegi. mais lees est-ce que jotul mu déclare le penseur boobu ñu ko doon wooye la dëgg deux waamte da doon ñëw liir adversaire bu bëreeg moom xeex moom et puis club ko doon moytu mais loolu yow yëpp gisatuñ ko ci moom. waaw loolu yëpp dëgg la ah mais am na entraîneur am xëy na sa combat ñu wax naan bëre li mu bëree loolu mais la dëgër boobu ba léegi mu ngi bëre benn defet rek la am de benn defet rek la am de defet boobu noonu rek la am man wax dëgg yàlla gisalaatuma ko fi beneen defet kenn mënu ko ñuy ba koy ñaanal yàlla tamit waa géejuwaay yëpp ñoo ànd ñoo jàppale ko ñaanal ko yàlla may ko ndam tamit ndax combat boobu géejuwaay soxla nañ ko trop tamit quoi. amoo dara loo koy moytuloo ci booña. aw ma dara lu mu mbër bu demee bay mootu mbër na bàyyi bëre su ma nee moytu anam bi muy bëree noo xamante ni moom na moytu ñu piégé ko. bu demee ba am lu muy moytu laa wax si combat yi na ko bàyyi mu bañ boo ko xasee ba jël amatoo dara looy moytu dangay ngay ñëw bëre mu entraîné ji gëm lu mu entraîné indi ko yow nga gëm li nga entraîné nga indi ko. boo ñëwee bu ñu ñëwee après kenn ku nekk ku njëkk a réussir li nga entraîné mooy moo lay jox ndam. Ah, lees yow su ma la déggee ni ngay waxee dafa mel sa xel dafa dal trop ci kombaa bi. <laughs> la dëgër dal yalla nako yalla may ndam buma duggal dugal laaj ma lenen <laughs> ba fuñu tall fofu ba benen fofu mu no ñak wax doomu nga dama bëgg nga leralal ma rek xam nga yow mom wa ndanan nga. non déggu lu mu la xam bo xasse ba far to wax dara non la démé man dama far ba paré lool mom motax quoi te bëgguma tamit wax ci li nga xamni ëlëk moy loolu quoi. parce que tamit li da wax ci aduna rek nang ko xolaat ndax nit ñi légui am nañ internet bi am na benn niveau bu mu toll léegi loo wax rek heure bu ne dinañ mun nañ la ko génne laatal te wax dëgg yàlla tamit dañ yor ay njaboot nekk ay nit nga am dañ ñuy am nit ñu ñuy déglu ñu xool tey faute erreur bu ñu def dañ ñuy woo di ñu ko reproché loolu moo tax tam bëgguñu di sore si yenn yi. am na solo waa bu loolu weesoo sànq bi ñuy door suñu waxtaan wax nga ko eh, nga démarré ak ay champion ku ci mel ne ay ñoom Modou Lo xam nga bëri ñoom mbapat am foo jaar ñoom tey ñu dem ba léegi tey nga gis fi ñu toll ci làmb yow nga am ay jafe-jafe yoon bi xaw a xaw a yéex trop tey yow nan ngay dundee loolu psychologiquement. defuma dara nag yàlla xam na ko yàlla xam na ni defuma dara ndax xam naa ni tamit nit ki moom lépp lu am si moom rek loolu la yàlla namm si moom yàlla mooy namm si gi nga xam ne tey day jël teg ko. lu mu teg loxom yàlla sottil ko am ñaa xam ne tamit yàlla day namu si ñoom tey seen yoon day day day day day difficile am mais feeg moo ngi difficile tamit ñuy am seen bakkan ak seen jàmm ak salaam rek pertu ñu dara quoi parce que des fois damay dégg mbëri naan dama am tolof tolof xamuñu sax luy tolof tolof yàlla nañu yàlla musal si tolof tolof sport moo demee noonu tey da ngay am défaite suba nga am victoire gannaaw suba nga amaat défaite wala am match nil noonu la demee quoi ñun ñu ngi leen di ñaanal fep fuñ ag ci si yalla na len jik yalla ñu am sax lu ëpp lool ndax mbeur mérite na lu ëpp lool sax seen kasse yalla na gëna cher ba lepp luñ bëgg ci doomu adam ndax mbeur lu nekk ci ginnaawam dafa bari bo toogee sa kër facture courant yi ordonnance yi charge yi nit ñi dañuy jóge fu nekk ñew di la solliciter ngay jël li nga am ak li nga amul di def kon mbeur lepp luñ ko fay mérite na ko tey di ñaanal mbeur yépp yalla may leen xaalis may leen ba lépp buñ dem ba bàyyi bëre sax am luñ toogaale yàlla mën na lu ëpp loolu yàlla na ko yàlla def si barke Seydina mohammed defal ko bépp jullit sax laay wax bépp doomu aadama fii Sénégal ak li ko wër. waaw bu loolu weesoo champion Guédiawaye info nekk site boo am te ni ñu ngi ko taxawal donc mu def liggéey boo am te di bay waaram au sein de Guédiawaye euh, bépp doomu Guédiawaye am te am nga bis ñu daal lay accompagner ba nga jëm ci ba nga egg ci li nga am te ni mooy sa bis tey boo am. Guédiawaye info def ma si lu dul di si kontaan ndax maa ngi koy suivre dama koy suivre guddeeg bëccëg ba bëccëg nag amul émission boo leen def te seetaanu ma ko yi ngeen jël per Balla ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dama koy rafetlu di gis di am contentement surtout si yow xamul tax damay gis ni yow lépp lu gars yi di commentaire da nga koy jël teewaat ko chaque jour nga xool loo si mën a defar defar ko ci te àdduna nit noonu la nit ku bañ ku la critiquer rek. bul dugg ci yenn milier yi te ku la critiquer rek mooy sa mbokk man tey dama sawar di yàkkam ñu may critiquer parce que heure bu ma def bañ critiquer moko ko dootuma ko defaati jàllaat naa pass boobu kon yokku naa dara xam lu la aduna non la yow ma lay ñaanal yàlla bu baax tey jii nii lii nii tey mu nekk dem ba nekk télé bu gën a mag fii si Sénégal ndax suñu fierté la suñu ndam la fii ñun waa Géejawaay télé bi suñu télé la ñu koy di ko ndamoo di ko di ko tamit di ko sago ndax géejawaay ay jamono ñun ay jamono nii dañ doon xëccoo génn tele xam nga tey jii nii wax dëgg yàlla dama kontaan trop ndax gëj naa sax toog si kii di wax yàlla xam na ko ndax euh, amu woon jot bu bari bi affaire yu bari maa ngi ci woon tey jii nii yàlla def sama première sortie ma defaat ko fii si situ surtout way kon sant yalla la bu baax a baax leen ñaanal yalla yalla may leen gudd fan may ko wër ak bépp fi fii géej eh, way ak wa école bi yëpp sa ko yor tam fele mu nekk yalla may ko fa jamm ak salam may ko tan tay bamu li bamu jall waaw du nuyu tamit sun wa association bi euh, les lutteurs en activité comme président bi nekk Khadim gadjaga tout récemment mu defone démission mais batay lañ ko joxat man maay kii man maa nekkoon trésorier bi ak porte parole gars yi ko nekkoon ak ñoom di nuyu ñëpp Pape Konaté père Tafa Gueye Kayre père Mansour Diop père Birahim Ndiaye ndax ñu si bokk bari na trop quoi maa ngi nuyu ñëpp ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla jàlla daf ko jàmm wàcce ko Sénégal ak si Afrique daf ko si monde bi yëpp. le mot de la fin lan ngay tàggatoo. waaw lu may tàggatoo rek mooy di ñaanal booy yi am komba sama rakk moom fii si écurie bi di fi bëre ñoo bokk benn papa amaat combat le 22 bi di ko ñaanal yàlla may yàlla may ko si ndam muy caatu Daouda Fall di wax waa géej waa yëpp ñu génn jàppale ko ndax yittewoo na ko te doomu géejawaay la li ñu doon xool si lees peut-être même bu sottiwul si lees mun na sotteeku si moom yàlla na ko yàlla defal si barke Seydina Mohamed di ko ñaanal waa mbëru école bi yëpp yàlla may la ndam bépp bàll mu ngi nii dafa war am combat gars yi war ko jox combat mu war dem bëre moom tamit di ko ñaanal yàlla may ko combat mu am ci ndam di nuyu ko su mel ne Pape Mama Fall di rafetlu action yi mu doon def yëpp di nuyu ko su mel ni Dieye seen suma xarit suma doom ndey ak Baara Ndiaye directeur maison de la presse di nuyu Malick Gakou Aline Sall maire de Guédiawaye Ahmed dara sama xarit sama doom ndey di nuyu ñëpp daal maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp géejawaay ñu ma tudd ñu ma tuddul di nuyu suma papa bu baax a baax a baax ak suma ay rak di nuyu sama soxna ak suma ay doom depuis Belgique maa ngi leen di ñoom ñoom ñëpp ak ay magam ak rakam di nuyu Cheikhou Lo Mbaye Kama Ablaye Fall Aliou Fall famille bi yëpp daal maa ngi nuyu ñëpp kullim da nga jum sama papa paa yi muy toogal yëpp quoi maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen ñaanal jàmm ak salaam quoi di ko ñaanal waa école bi tamit. waaw boo ko indoon di loolu moo doon waxtaan bu am bi nga xam te ne nañ ko ak le grand champion Double numéro 2.

parce tey comme sportif mag bi li mu ko doon waxee rek waaw daan ni je veux je peux traverser une mais je ne peux pas automatiquement perdre toutes mes qualités waaw daan tey mun naa nangu ni mun naa nekk ci ay jafe-jafe mais mun ma tëb tëb rek sama xam-xam ak samay qualité lépp daan may réer yaakaar naa ne loolu tey bu ko gëmee rek daal di gën liggéey dina ñëwaat euh, mu doon waxtaan bu am solo une discussion pleine d'enseignement comme di ko ñaanal yàlla yàlla may ko jàmm tamit lépp lu muy mbébét si xolam yàlla moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ak ñun tamit lépp lu luñ ko yéene xam nañ ko suñu xol yàlla na ko yàlla defal si barke Seydina di ko di ko defal di ko di nuyuwaale Baboy wax ma Baboy Baboy mbër ak beneen Baboy sama gaayen di nuyuwaale Abbas Diop ak Cheikh bi gaa yëpp daal maa ngi nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn quoi. waaw di leen sant di leen gërëm di sant aussi suma technicien l'incontournable Bekay Koundoul merci.